waaye nag lu ma tax xam ne xam ne na ko waree na aw dox yi nag itam lan ah mën caa xamee lan ca lan ca lañ ca àttan sëriñ bi boolewul ak dara boromam ak yonent bi moo ko tànn bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boroomam di woon jaam ñi nañ war a jaamoo suñ boroom tum kem kàttan loolu kon loolu moo moo ci bàyyi moo ci war a bàyyi euh, sëriñ bi boolewul dara boromam ak yonent bi rek waaye boromam ko tànnal nag bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boromam wane ci nañu war a nekkale nañu war a jaamu suñu borom loolu nag daal di ci mën jiitu afu wajhillah jublu jublu suñu borom bi ñu ko lépp wan gannaaw lu moom dadu adduna te daal adduna bañ noo saf nekk ci nag nekk ci ñu gën a la bi nekk ci nim li mu fi bàyyil kon lan ci war a bàyyi rek moo lim li mu fi bàyyi li mu fi bàyyil suñu lépp jëmale ko mu jëmi ko nag ci sant sëriñ bi ak sax dàkk ci liggéeyal ko liggéey bi nag moo di nekkal ko ci lim lim lim bëgg moo di sax dàkk ci yàlla yàlla ci sunu sonant bi sax dàkk ci yàlla yàlla ci dugal suñu lépp bàyyi adduna bañ ñoo saf loolu li muy andil lu dul tànn dara lu suñu borom ak àllaaxira rek nu jëm duñu taal adduna duñu taal duñu taal suñu bopp duñu taal adduna waaye nag li li tax suñu borom tànn sëñ bi mu nekk ci biir jaam yi nekkal ko ci. jamoon jaam ñi nañ ko war a jaamoo loolu moo ñu ci bàyyi loolu rek moo ñu ci bàyyi kon mu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax mu góorgóorlu ci mu góorgóorlu bu baax a baax ci nan mën a sant sëriñ bi ci nan ko nan ko mën a liggéeyee ci li ñu fi bàyyil ñu sax dàkk ci jaamu yàlla rek ci suñ lépp nag. na ko suñu borom diglee suñu kem kàttan ko teree doo ko def suñu kem kàttan na suñu borom ko bëgg suñu kem sax dàkk ci loolu loolu moom rek bi ñu ko mën a sant fee bàyyi wut loolu loolu nag ci kattan suñu borom ak xereñam bu mu yàqal dara lan war a am ci àdduna ci ci yiw bu mu xañ dara lan war a am ci yiw te loolu rek nag itam mooy tax nu mën a sañ seen sëriñ bi mooy tax nu mën a sax ci liggéeyal ko kon góor góorgóorlu bu baax a baax a baax sax dàkk ci li mu fi bàyyil moom moo nuy defal suñu lépp moo nuy sàmm ci wàll yëpp biir ak bitti adduna bari nay pakk lool waaye ku sax dàkk bu nu saxee dàkk ci li mu fi sëriñ warat noo tiit dara dañ koy tënk rek ci mu sax dàkk ci wéetal yàlla sax dàkk ci dooloo sëriñ bi diggam ak diggam ak boroomam te nag ci li mu nekk loo bu ko defee du mu ci dara du jaaxle ci dara mu ragal dara te dara mu du woon ci woon ci noonu dara kon loolu mooy li ci am solo nañu góorgóorlu bu baax ci nekk li sëñ nekk ci nekk sëñ nekk ci li sëñ bëgg ci noonu nekk ci mu nekk loo te wéetal wéetal suñu borom gën a wéet waxtu wu ne ci biir bitim ñu gën di wéetal suñu borom ci lépp di gën di doyloo sëñ bi itam nag di gën borom ci lépp loolu mooy li nga xam ne mu eh, ci buñ ci buñ ci góor buñ ci gën a góorgóorlu rek gën a yëg. suñu bopp ci gën a moom suñ bopp ci tënki-tënki adduna ak gàllankoori adduna lu lu ci gën a nekk rek di gën a moom suñu bopp ci ci wàll googu tënki-tënki adduna ak gàllankoori adduna te bari na lool waaye loolu rek mënu ci mën a musal kon bu nekkee ci loolu loolu te li ñuy andil mooy taxi adduna ak taxe alaxira rek muccu adduna muccu alaxira defaru adduna defaru alaxira loolu rek la moo ci moo ñu ci dikkal kon ñoo ngi sant ñëpp di balu ak ñëpp dénkaane ñun ñëpp ñu balante ak mu xas loo ci lay amee yàlla bu amee lu doo tal dara ñu ku tëlu ku tëlu ku tëlu dara nag ñu yàlla ak alaaxira sa lépp ak yiw la ndax dootoo xëccoo dootoo xëccoo ci dara àdduna dootoo jëmee ci sama moroom jaam genn ñenn ji ñaaw waxuma laa jafe nga loolu nga rek la demee nan góor bu baax a baax a baax baax a baax ci sax dakk ci wetu yàlla gën a sax dàkk ci jaamu yàlla loolu mooy cër suñu lépp nekk suñu ci yiwu adduna suñu yiwu adduna ak si suñu yiwu alaxira lépp ngi si loolu kon jërë ngeen jëf nan góor bu baax a baax a baax te gannaaw ba nu santee cant goo xam ne yiwul fenn ndax ba nu suñu borom boole sëñ bi rek booba la suñu ajo mel na ni suñu aj booba la suñu ajo fajo ndax euh, sëñ bi doy nañu ci lépp doy nañu ci àdduna doy nañu ci àllaaxira loolu kon sant yàlla rek noonu war ak nag jéem ma nekk ci loo xam ne kenn ko mën a sante kenn ko mën a liggéeyale jërë ngeen jëf. dañu taal bi ñaan. góorgóorlu bu baax nag baax ci muuri koor yi ndax yitte juree la ñu ànd koor gi kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax suñu kem kattan.